alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalib ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi yee salaat sunu njëbbal ci sëriñ Touba ñoo ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di jaarale ci nuyo bi jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lañu toogal muy sëriñ Abdul Fatah Mbacke di taalibi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñuy waajal bis bu màgg bi nga xam ne moo di bisub Seex du Faadal te bis boobu moom mooy bisam moo ko boole ci sëñ Tuubaa kon nag ñu dikk nag ngir taatan ay kàddu yoo xam ne danañ gën a mën a amaat cofeel gën a mën a bëggaat sëriñ Fallu waaye gën koo mën a liggéeyal ci bisam bi nga xam ne lépp lu mu am ci sëñ Tuubaa ci la ko ame euh, xam naa dañuy jël kàddu gi jox ko ñu ànd ak sunu site bi di sunu actu point comme ñu ngi nii nag ci kër bi sëriñ bi nag moom moo yore kàddu njaboot ak ma du Faadal gépp Euh, ñu jox ko kàddu gi kon ñu njëkk kàddu gi jox ko sëriñ Xaadim mu ubbil ñu jataay bi bu ñuy tëj sëriñ bi tëjal ñu ko incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa sëriñ Saliou ñu ngi leen di siyaare ci turu suñu kilifa suñu sëriñ Cheikh Abdoul Fatah moom it mi ngi leen di nuyu ci turu kilifaam Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Maodou njabootu Cheikh Maodou gépp ak ci turu jawriñam Cheikh Maodou Basir Cheikh Abo it mi ngi leen di nuyu ci turu kilifaam sëriñ Mountakha moom di Xaadim Rasul moom Cheikh Maodul Basir di leen sant bu baax di leen gërëm ci waajtaay wi nga xamante ne bi ci lañ nekk ngeen bokk ci ñi nga xamante ne bi yéen a fi jiitu ngir ñu ma mën a waxtaane bis bi di ñaan ci barkeeb kilifaam gu tedd googu yi nga xam ne moom lay tax muy waajal bis bi muy Cheikh Maodou Fadal bis bi ñu ñu waajal ko ci jàmm mu egsi ci jàmm ñu defee ko na gën a la nam nam gën a la sëriñ bi ci daje ci ngërëmam waaw Cheikh Abdou Fatah nag moom ab taalibe la boo xamante ne bari na lu ko lu koo xam te ne bii sëriñ kilifaam waajuram moo ko moo ko nàmpatal ci moom muy muy gëm sëriñ tubaa rek te du ko booleek dara gëm waajuram mu tedd woowee muy Cheikh Modou Fadal te du ko booleeg dara jaral na ko lu ne nag jaral na ko bakkanam comme ni ni ko sëriñ tubaa waxee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu amee loo loo xamante ne bi dafa naroon a jam yonent bi jaral na ma man lal sama sama lex mu teg ci tànkam ba loolu du ko jam tubaa Tuubaa moo du Fadal li waxoon ne génn ay rongoñ farata la ci moom. ngir sante ko ko waajuram bu tedd woowee di sëriñam ba Seexul Xaddim moom mi nag foofu la nekk Cheikh Maodo Fadal muy waajuram jaral na ko lu ne jaral na ko tóor ay rongoñ jaral na ko ñàkk bakkanam jaral na ko ñàkk ñàkk alalam ngir ngërëmam rek na xam na ne ngërëmam moo koy jëriñ fii moo koy jëriñ fa muy fa mu jëm ba tax na li ko Cheikh Abo di liggéeyloo ci waajtaayu màggal gi ak ci bis ba alalam du ko fekkee man-manam du ko fekkee dooleem du ko fekkee ngir lan am ci ngërëmam ndax mu ngërëmu Cheikh Cheikh Modou Fadal moo koy jariñ amoon na ko waaye teewut ngërëm moom du doy day dolli rek ndax dolli moom amul fu mu yem loolee tax nag incha allahu rabbi mi ngi ñaan suñu borom dolli ko wér dolli ko kattan ba yéene ji mu am ci liggéeyal maamam ju tedd ja Xaadim Rasul yéene ji mu am ci liggéeyal waajuram bu tedd wax Cheikh Modou Fadal suñu borom defal ko ci tawfeex ba mën ko moom xam nga Cheikh Modou Fadal moom dafa waxoon lu leer dane moom boo du ma du ma dara la waxoon boo nee Sëñ Tuubaa rek maa ngi ci biir. ndegam boo nee Sëñ mi ci biir nag kon du mën a beru di di di taxawal lenn wala fenn ndax lépp lu am Sëñ Tuubaa la ko jox koo xam ne nee na du ma dara du ma kenn boo nee sëñ bi rek maa ngi ci biir kooku mooy waral ma li Sëñ def ko nii mu ko def ndax nam def siñ Tuubaa dafa jafe waaye ku ko def Sëñ Tuubaa mu defal li mu ko def li ko defal waaye nag yombut a gis ci àdduna wala ci yoon wi wala ci bokk gi nii mu def Sëñ Tuubaa ku ko def waaye nag na ma ñëpp bal waaye new naa gisit ni ko Sëñ Tuubaa defal ku ko defal waaw moom di jumaa ji moom taxawal na ci def na ci lam ci war a def lépp ndax nekku nekk nekku fi doon doom bi Sëriñ Tuubaa moom dong waaye Sëriñ Tuubaa dimbale ko ba feeñ na ci feeñ goo xam ni eh, dootu nëbb ilal abat yeneen yi ngay wax ci wàllu njàng daara ji fi defal Sëriñ Tuubaa muy jàngkaayu xam-xam mook jumaa ji ñoo ñoo maase ba fii may wax yow waxtu yi boo fa demoon fekk ñu fay tëral lu xam-xam fekk fa def nañ fa mbaar moo xamante ne bi boo fa demoon fekk ñu fay tëral xam-xam bokkut ak ñi nga xamante ne bii nag ci njaboot gi lañ bokk wala ci bokk gi nga xam ne moo leen jëlee fii ngir xam-xam yóbbu leen bitim réew ñu jàng fa ba am ay lijaasa bokkut ak ñi nga ne bii kenn rëwu leen ci génnuñu réew mi ndax loolu dafa bari am na ñoo xam ne kenn rëwu leen ci génnuñu réew mi misaal mi mooy sëriñ Saaliw bi dafa daan wax ne sëriñ Abdourahim Dem ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne bii da leen daan joxe ay misaal naan nañ mosuñoo génn réew mi te kenn rëwu leen kon ñàkk génn réew mi teewul xam-xam bari fi hmm. teewul nag ña waroon a génn moom génn leen ñu war a toog it mi ngi leen toog toog na sampal leen ay daara ñu di fa jàngale muy liggéey muy jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi lu mu am jox ko mbooloo mi Cheikh Abdou Fatah mii nag foofu la féete moom it lu am jox ko mbooloo mi te maa ngi fàttaliku at yi ci ginnaaw bokki taalibe yoo xam te ne bi dañoo waajal màggal yi ba mu mu toppatoo leen lool bañ màggalee ba màggal ga jàll ñu ñëw fii di sant am nuñ bëggoon sante moo ma wax ko sëñ mu ne ma ne ne ne ne déedéet ne leen nañ bàyyi noonu rek daan ne leen bu ma naree am lu mu bokkut ak taalibe Sëñ Tuubaa yàlla bu ma ko am te loolu mooy dëgg wér kii ngi moom bis bii ñu def la sëriñ Fallu it kenn mënu ko ci ndax lam cay def bëggut kenn wax ko waaye suma ma su ma su ma ko limoon da nga ne léeg-léeg lii nekk ndax xëy na yaa ngay gis yu bari yu jëmm yoo xam te ne bii loxo ma ca nekk alal ma ca nekk waaye du wax kenn te njabootam it duñ ko wax ndax kenn tax def muy sëriñ Fallu tax gis na ko loolu am ab lijaasa la ko defoon rek boo xam te ne bii am na ñu daan yóbbu sax te mëkkuñu mëkkuluñu alxuraan ngir yàlla ak seen seeni waajur ndax boo ko féetalee foofu am na ñoo xam te ne bi suñ borom ñoom ñu war a mokkal te am na ñum dogal ci ñoom mu war leen a yóbbu bu ko bu ko ajee foofu rek day gën a métti waaye loolu ab soññee la ci woon bari na ñoo xam te ne bii yóbbu na leen te euh, kaamil ba ko joxee moo tax mu mu mu takkal leen ko ab lijaas am na ñoo xamante ne bii nag seen waajur a tax ndax yéen jum amoon ci ñoom te ñooñu fekki wuñ ko wala ñu fekke ko mu mënuñoo dem ngir seen kattan mu jël seen doom yóbbu te kenn ku nekk ba muy ba mu lay yóbbu am na nu mu defoon ak yow Cheikh Abdou Fatah mii bokk na ci ña muy yóbbu ba ko jox ni ko defal sa poos buñ la toppatoo nga toppatoo sa bopp buñ ndax ku tedd gi bi mu jógee Njaareem lettre ba mu fi bàyyi woon sëñ sëñ Touba baaxee na Cheikh Abdou Fatah mi ñaari maamam waajuram nekk ci muy ca lettre ba Cheikh Modou Fadal turam a nga ca Cheikh sëñ Baara Xari Fall turam a nga ca te moo jur soxna ummi mu jur ko loolu nag xam nga lu réeréer la sëñ Tuubaa bindal boppam teg ko ci kab dënnam ngir wax nañ koy toppatoo ña koy dugal ci pax maag ña koy ñaanal sëñ Baara Xari Faal la nga ca jur soxna Ummi mu jur ko Cheikh Modou Fadal la nga ci moo ko jur loolu bëriwut ñu ko am bu loolu weesoo it njaayareem ñu bëree bëri moom lañ doon féetewoo moom nag mu féetewoo Touba taarixub Touba am na ci loo xam ne buñ la ko waxee sax doo ko mën a gëm ndax lépp Sëñ Fallu waaye nag ak yaatalam ak ak yaatoom akuk mën a muñum akuk bennale moo waral mu demee nii ba muy woo ku mel ne Serigne Cheikh Gaïndé Fatma yàlla na ko yàlla doole xewal di ko liggéeyloo dëkk bi def na ko mbedd sax bu mënee ja bu dee bu fekkee ne man war naa jaar sama biir kër sax na mm-hmm. nee nañ am na ñoo xam ne sax buñ mosaan jaar seen biir wala ñu bëgg koo jël wala ñu bëgg a jaarale mbedd ma yoon ca ci biir kër ga dañuy ñëw di boole ci moom ci moom am na ñoo xam ne léeg-léeg sax mu ñu ko waxee da naan xaar ma yëkkat samay tànk bu la fee mbedd jaar mm-hmm. moom Cheikh Modou Fall ngir <laughs> nga xamal ne la maanaam ndegam bu ñu moom mu jaar fii sama biir kër bu ñu mu jaar feneen mhm. te am na loo xamante ne biin faaw da nga da naan cel rek ñu def ko bu bu fekkee ne intervention yi day bari rek la nga ko bëggee dooni ko amee ba kenn ku ne xam na ne biir na fi mhm. ndax kër yii ci ginnaaw këram ko sëñ Bay Sàll kër yii ci ginnaaw këram yi yëpp ci biir këram la bokkoon mhm. yaatal ak xam bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa moo waral mu fab lépp jiital sëñ bi rek bañ a gis boppam te kenn ku ne xam na ne ba mu fi nekk mënoon na lu ne mënal ko njabootam waaye lenn lu mu leen bàyyee fii amut kum leen bàyyee mooy yàlla mi nga xam te ne loo ko bàyyee mu lijjantil ko ak Serigne Touba mi nga xam ne moom la gëm ñoom ñi nag ci loolu la ñuy dox. waaw moom ren de ci suñu ndigalu suñuy kilifa ñun duñ def dara bi xëy is nii. Hmm. fal isnu sartun fi xaboli saxani bul def dara ci lu du ndigal ndax ndigal ab sart la ci nangu jëf bi ñu waxtaanee ak suñuy kilifa dañ ko tudde Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina mi nga xamante ne kenn la woon ci Cheikh Maodo Fadal ndax sa am na fu mu tolloon eh, ci kanam Cheikh moo du ku kanam ku tedd gi waxoon na ko ne bu ma fàtte kenn ko ne xam ne fàttiwu ko ndax bi jumaa ji noppee feeñal na ko ci ñàkk ga fàtti Cheikh Ibrahima Fall li muy doon doon doon mag ab taawam Cheikh Cheikh Maodo Fall la ko tuddee fi ñu loolu ñu bari xamuñu ko. taw boobee bokk na ci sëñ bi jullee woon ngir ñu mën a dem ci guerre ba. dem na ba dellusiwaat waaye keroog ba muy waajaat di dem Cheikh Ibrahima dafa wax ne képp ku ko bëgg gis ba yow xool ko ndax xam naa bu demee du dellusi te kooku moom mag ci njabootam ñu bari xamuñ ne sëñ Tuuba sëñ Cheikh Maodo Fall la ko tuddee moo ne sëñ tubaa tax mu tuddee ko ko de lu tax tuddee woon ko tuddee ko sëñ tubaa kon kóllëre moo tax ak bëgg gum ak fonk gum fonk Cheikh Maodo Fadal am na ñeneen ak ñeneen ñu ko mënoon a tuddee waaye teewul Cheikh Maodo Fadal la tànn ko ko kookee nag lañ tànn ñun ngir euh, bu ma fàtte joojee mu xam ne sëñ Fallu fàttiwu ko njabootu sëñ Fallu fàttiwu ko waaye sëtti sëñ Fallu duñ ko fàtti ci ndigalu seen seen i kilifa ndax biñ ko ko tuddee dañ cee bëgg lool ndax Cheikh Ibrahima Fall dafa bari fu mu jaar ak Cheikh Cheikh Cheikh Maodo Fadal ci ci li ñu xam ne sax bëriwut waaye yaakaar naa suñu kilifa yi buñ buñ ci waxoon ci lañuy ci ngay ci ngeen di gën ne Cheikh euh, lii ñu def nii def nañ ko fi ñu a def waaw ci ngi koy waajal nag waaye waajtaay wi ci ginnaaw bu sëñ Cheikh boo joxee ay kilifa ba ndigal muy suñu kilifa yi bopp yi dañ cee ànd ak ku mel ne Cheikh Abdou Fatah mii ndax la ëpp doole nga xam te ne bii fa lañ koy defee maanaam moom mii moo moo moo moo moo moo làmb poosam fas yéene ko def. at mu jot moo koy def. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bi da ko bëgg a defal maamam da ko bëgg defal baayam bu tedd bi ci këram gee yoo xam ne diggante mook Cheikh Abou rek lay doon ndax noonu lay dundee li muy def ngir waajuram ba da koy def. ngir dig ci diggante moom Cheikh Abo la muy def ngir waajulam te du ko def ci taalibe du ko def ngir diggante bu taalibe ndax bis bu euh, at mu jot buñ sañoon buñ màggalee ba ci ginnaaw suba ñu màggalaan ndax ñu baree bare bari teraanga joo xam ne Cheikh Modou Fadal def na ko ci ñoom te jaarale ko ci jëmmam ji ak jaarale ko ci njabootu Cheikh Modou Fadal ngir mu dem ci ñoom kenn ku ne xam na ne dëgg dëgg bi lu mu dëgër dëgër bisu Kazu Rajab bi bu xasee dëgmal si rek ngi koy wax ne daaw dañ laa yërëmoon lool ci jataay yi def fii sax ba ne la woon mën ngaa toog rek waaye Sëñ Fallou ja mujj mën a too toog ba da ngaa ñu mu fekk si leen ci jataay bi xanaa lool mën a fàttaliwaat ci Sëñ Fallou rek <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh yéen bokk jullit yëpp noonu bokk taalibe yëpp maa ngi di nuyu jiital ci nuyoo bi Serigne Touba Serigne Mountakha moom Cheikh Mboul Bachir yàlla na fi yàgg te wér lool ak njabootu Xaadimu Rasuul yëpp di nuyu tudd sama kilifa Serigne Abou Mbacké moom Cheikh Mboul Fadal da ko ñaan mu yàgg te wér lool ak njabootu Cheikh Baal Mbacké am nañu taalibe yëpp di nuyu tudd Serigne Bachirou mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi di ko ñaan mu yàgg te wér ak ñun njabootu ak ak ak ñun taalibe yëpp li ma ci war a wax lépp sëñ sëñ Cheikh Cheikh Khadim wax na ko kon nag xanaa sant ñëpp gërëm ñëpp di xamal eh, ko teewaat na gën déwén te at mu ni dàq ren wa rahmatullahi